abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yu partout TV Pape Alé Niang yëkkati ay kàddoom jëmale ko rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange biir réew mi fii ci Sénégal muy laaj rek ne ñoom est ay républicain la ñoom maanaam bëgg seen réew bu fekkente ne woon jaral na leen leen rek dinañ daal di xalaat que leneen lu dul jël ay naqar ak ay tiis di ko teg ci askanu Sunugaal nekkat bu ñu seetloo yeneen réew yi ak nu ñu manti mel wala bokk defa yoo xam ne rek seeni doomaanu réew am nañ ko dinañ ko daal di mën a muñ ba nag régler leen teg leen ci yoon wante kat fii ci réew mi di Sénégal ñi nga xam ne rek ñoom ñoo waroon a teg axe ñii di doomi aadama yi di ay citoyen dëkk ci biir réew mi dañ leen di daal di xoqatal saa su nekk rek di jamono boo xam ne dañ koy nemmeeku nekkat li si mu juddul lenn lu dul rek teg loxo gi nga xam ne saa yu gi lay na rek ñu daal di koy jël Ousmane Sonko ñu gën see fës nag tax moom mii di Pape Alé daldi ne loolee kat dafa war a dàkk ci réew mu nga xam ne rek bëgg na développement ci ay ndawam ba tax jamono bi ñu toll nii ñoom ñëpp rekk ñu daal di jël yoon wi pour nag génn réew mi nekkat la ñuy gis di ko nemmiku te muy xeeñ te nag saa yuñ ko yàkkee du neex ci askanu sunu gaal tax xale yi daal di jël gaal gi fa yéene génn réew mi ñu bare bari di leen si yedd moom mii di Pape Alé Niang muy xam ne nag xam ñàkk na ko lii di kaaraange gu mat sëkk moo waral mbir yi ni mel di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di wéy di abonné